sëñ Abdou Khadim Mbacke moomu Cheikh Saliou ak sëriñ Mourtala moomu Cheikh Saliou ak njabootu sunu sëriñ sunu maam Cheikh Saliou bi fi teew yëpp di sëriñ sëriñ Saliou yëpp di yëkkati ay nag ci turu délégation bi ma àndal ñu jógee kër sëñ Souhaïbou di daayira xoroto xorotul ayni bi nga xam ne mooy taxawe jataay yi ak yi xam-xam yëpp ca kër ga ñooy dundal jumaa yi sëriñ Souhaïbou ji ci wàllu xam-xam mu ànd ak sëriñ Abou Mbacké moom sëriñ Mouhamadul Adib mi nga xam ne moo jiite daayira Xuratul Ayni boobu ak sëriñ nga xam ne moo koy jàppale ci liggéey bi ànd ko moom ak sëriñ Abdou Diagne ak ñi àndal ñëpp ñu teew ci jataay bi di am mbégte lool nag ci jataay bi nga xam ne teew nañ fi muy jataay bu am solo boo xam ne bokk na ci jataay yi nga xam ne dana taaral dëkk bi waaye dana taaral weer wi ku ne xam ne ne dëkk bi dëkku diine la boo xam ne borom bu ñu ko bi borom bu ñu koy sanc diine rek moo taxoon mu sanc ko kon nag weer wi mel ne weer wi nekk di weeru koor bokk ci weer yi gën a ràññeeku ci lislaam yaakaar naa ne ku ñëw ci dëkk boo xam ne dëkkub diine la war naa ràññeeku lool ca nañ koy taxawale ak nañ koy dundale mu mel ne taxawaay yi nga xam ne am na fii kër kër si kër si Saaliw te jiitu ci barab yu bari mën naa caa tudd kër si Saaliw ak yeneen barab yu bare bari yoo xam ne ñu ngi koy dundal ci anam gi loolu lu lu dal xel la lu tax lu lu lu rafet na ci dëkk bi yàlla yàlla def na programme yi boobu mu wax nga xam ne moo moo jóge kër suñu yi jotaay yu mel nii yàgg nañu koo taxawee di ko ànd ak mbokk yi nga xam ne ñoom lañu fekk si fii di waa kër Cheikh maa ngi koy wax si Ibo léegi da nga ne ko daanaka rek jël jël jël jëlutoon ñi fi ñi fi jël kàddu ci ñaari anam anam bu njëkk yi mooy diggante Serigne Saliou ak Serigne Souhaïbou dañuy dañuy jënd jëm du ñaar seen mbir dafay lenn du ñaar waaye seen njaboot it dañuy dañuy dañuy benn ñi ma fekk ñëpp di di sër di sër Serigne Saliou daanaka ñu ci ëpp wala wala daanaka mën naa ne ñëpp Serigne Souhaïbou lañ lañ bokkoon nekk ak ñoom te daara ju ñu jàng ndox yaram ndox mel na ne cër bi ñu am ci Serigne Souhaïbou lañ fa am. taxawaay bi ñu fa am lañ fa am lañ fa am ba tax na daanaka rek dama ne ko woon jërul ñu jël kàddu kàddu yëpp nañ ko bàyyiwaat seen loxo ndax du du du du ñaar du ñaari mbir benn mbir la dafa fekk na rek teraanga moom buñ la ko joxee faaw nga wane sa mbégte ci teraanga bi ak sa xolu sedd waaye diggante ñaari kër yi moom wala diggante ñaari njaboot yi daanaka ñaari kàddu daf ci xajut kon nag ñu ngi dellu di sant njabootu Sëriñ Saliou bi ñu fekk yëpp ci turu daayira boobu ma wax waaye ci turu ci turu sunu kilifa nga ñu bàyyi ko muy Sëriñ Saliou Mbacke muy suñu Saliou bi ak ñu ngi ànd ak yéen taxawaay yi dafa seen di ko ànd ak yéen ba faaw na ko suñu ñaari maam yi tëdd yooyu ànde woon nañ ko dundale woon ñoo ngi fas yéene teg suñu tànk foofa lépp loo xam ne nekk ngeen ci ñu nekk ci ak yéen lépp lu ngeen yëngu ñu am ci ak yéen kon ñi ngi sant bu baax a baax di rafetlu jotaay bi di rafetlu cër bi nga xam ne jox ngeen ñu ko ci te muy cër boo xam ne day mel ni ko moom kon kàddu yooyu rek ci gàttal loolu la loolu la jëm yëkkati ngir wane suñu mbégte ak suñu xolu sedd ci turu daayira bi ci turu bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abo ci kàddu yu rafet yi yu wane ne rek wane nga ne li Seydina Yusuf waxoon haasihi bidaawatuna ruddati ilayna lii yéen a ko moom rek ñu delloowaat leen ko wala ngay ne buñ tuddee kër sëriñ Saliou rek tudd nañ kër sëriñ Sohaybu te jataay yi nga xam ne moom la ñuy amal fii moom la ñuy amal ci péccu sëriñ Sohaybu yëpp ngir tasaare xam-xam ak it xeeñtu rek ndono yi wax du baax kon nag ñi ngi ñi ngi leen di ñaanal yàlla ànd bi gën a sax yàgg te mbokk bi gën a dëgër dana am jàmm ba li ngeen yéene liggéey seen moom yi tedd yëpp ngeen def ko ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba waaw bi sëñ Awo di daaneel kàddu gi nag ma dikke ñaar turu si la donc ñu koy daal gannaaw kàddu sëriñ Abo mu Cheikh Ahmadou Mbacke Sadio kon dañuy jox ki nga xam ne mooy kilifa jataay bi mooy sëriñ Hamsatou Mbacke Cheikh Ahmad mu ci jox ñu ay kàddu ci solo si jataay bii rek ak kàddu yu ñaaxe ak soññee ci li nga xam ne ni moom lañuy ñuy taxawal fii ak jubluwaay bi loolu moom moom dañu waxoon ne kon bu sëriñ